ndax li tax ñu di la sant mooy danga nga toggooloo xam ne nii ñun ñëpp la waroon nga yanu yan bu diis boo xam ne yaakaaroo ci kenn ku dul yàlla te it mu yan boo xam ne nii dëgg ñoo gën a gore waaye lii mbooleem ñun ñi ñi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Ahmadou Sakhir te buñ ne njabootu Serigne Ahmadou Sakhir mooy képp ku ma a jaar ci barab bii lii ñun ñëpp la waroon kon nag bu fekkente ne danga dagg sa yitte amoo senn soxla amoo génn bëgg-bëgg lu dul ñoŋal li fi mag ñi bàyyi woon loolu ñu ngi la ciy sant bu baax baax di la ci gërëm ndax wolof day wax ne képp ku yokkul day wàññi nga waaye gis nañ bu baax baax liggéey bi fi nga ko yóbbu amoo jenn yitte amoo jenn bëgg-bëgg amoo menn xememteef lu dul liggéey bi mu ñoŋ ba ñëpp teg seen bët waaye ñëpp di ci daj ak seen loxo loolee nag ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di la ci ñaanal ci barkeb alxuraanul karim ci barkeb Serigne Touba li nga weesu ci sa kanam li nga jublu ci sa kanam yàlla doon asaka ci li nga romb suñ borom dëbb la kàttan gu bees tàq guddal saw fan lool wéral say cër ba fépp foo xam dañu fay dégg ndama lislaam wala ñu fa dégg ñu fay dégg taalub lislaam ñu dégg fa barab bu tedd bi ñu dégg ko ci sa loxo gannaaw bu loolu jàllee itam ñu ngi lay seereel bu baax a baax njaboot gi nga xam ne ñoom lay àndal mu di njaboot goo xam ne yow mii ci sa jëmmi bopp yaa leen tudde woon ci sa baat bu tedd ba muy jamxeetu xidmal xuraan mu nekk Touba ñuy mbooloo moo xam ne nii xam nañ li leen dajale ndax ànduñu ngir ay am-am waaye di ñoo ànd xam ne njabootu sëriñ Ahmadou Sakhir fu ñu nekk ñoo ñu nekk ci sa daara ji ñoo yem ñuy ànd di dimbalante li nga xam ne moom la sëriñ Ahmadou Sakhir defoon ci nun wala li nga xam yow mii def nga ko ci ñun ñu xam ne loolee kan mun ñoo fay bor ba waaye nag jaadu na ñun ñuy ñu xam li ñu boole saa su ci nekk ñuy lëkkale kon nag njaboot gi ñu ngi nii seen yitte jëpp seen bëgg-bëgg gépp seen seen fi yëpp mooy àndandoo ci ginnaaw suñu mag ju baax ji ak àndandoo ci suñu soxna yu baax yi kon na nga ñaanal njaboot gi ba li nga xam ne mooy seeni góomi xol loole daañu la ko jambat muy léeg-léeg danañ dégg ay jëf yu rëy yoo xam ne ñun daara dañ ko def ci barab bi te kenn ku ci nekk amoon na yéene def fa kon nga na nga leen ñaanal ñoom ñëpp moo xam góor la moo xam jigéen la suñ borom dëbb ko kattan suñ borom defal ko wërsëg wu bari woo xam ne nii fu ñu dégg nit koo xam ne danañ am lu muy def ci kokk gi suñ borom mën ñoo boole ca ñooñee ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la xamale mbooloo mi daal yàlla rek moo leen boole xam nañ li leen boole te it képp ku ci am soxla moo xam lu mu mën di doon mbooloo mi danañ ko ànd ak yow ba mu jeex tàkk loolu ñu ngi la ko seereel bu baax a baax aay ba nga xam ne moom nga ñu waxoon muy fattaqullaha mastata'tum loole saa suñ dajee loolee la ñuy xool ci ci mbooloo mi kon nag ñu ngi sant mbooloo mi di leen gërëm ñoom ñëpp di ñaan suñu borom gën a guddal saw fan suñu borom wéral say cër suñ borom sàmm la ni mu sammee asamaan ak suuf ba li nga xam moom nga bëgg liggéey ci barab bii suñ borom may la kàttan nga def ko nam la soobe waaye nag na nga ñaanal mi ba waxtu woo gees war gis leen ñu bokk ci jàmbaar yi nga xam ne kenn du leen mën ci barab bi loolu suñu yitte la loolu suñu bëgg-bëgg la ñu ngi lay sant di la gërëm wasalaam. jox nañu ko ñu indaale ko fii beneen ba tamit mooy am na ci ñoo xamante ni mënuñu leen a bañ a tudd comme ni ko kii waxee ay imam yu nu àndal waaye moom mii raw na ci hôpital régional lay liggéeyee fa fa lay fa lay jiite waaye mën na fa lu bëree bare bare bare bare naw nañ ko fay lu bëree bëree bari te it daara la yorit waaye daaraam sun daara bu xewlee day bàyyi daaraam ñëw nekk ci li nga xamante ni ci la ñuy nekk lu mat weer a ngi nii woo xamante ni ci liggéeyu daara yi kokki képp la nekk te lu mu ñëw lépp mu ñëw kon moom xam na message bi nga xamante ni sëñ bi joxe woon na ko kon il faut ñu sant ko il faut ñu gërëm ko ak ñeneen ñin àndal ñëpp ten yëkkati seen i dërëm def ci xañ na dunu wax tur tur yépp waaye ñi ngi lay wax daal sëñ bi waa Thiès mairie Thiès kin fi àndaloo nag moom xam na ko ñëw na fi joxaat nañu lu bari it jàppale nañu bu baax a baax a baax a baax jàppale goo xamante ni am na commencement te amul jeexal comme ni mu ko Modou waxee indi nañ fi téeméeri kaamil ak juróom indi nañ fi lu ëpp fanweeri bari fëgg jaay li ci topp nag mooy ah waa Thiès it fàggu ci ñaari million ak ngeen jéggal nag xam naa ne niñ ko bëggoon a jotale ak niñ ko bëggoon waxee duñ ko ne ma ne ndax xataay bi ndax fi ñu taxaw nii ñu ngi taxaw li ma fukki ni ñu ngi taxaw di ñu woot ci ay tey yitte yoo xam sëñ ci yebal ah, ci turu sëñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di jottali ay nuyam tamit ci ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di lu taxawaay waa Thiès démb te tey dikkagul yéen am ngeen sañ-sañu lu daara ji woote ngeen dikk waxuma ngeen dikk waaye am ngeen sañ-sañu toog fa ngeen toog na daara ji nañu yónnee ay oto ñu yebal def ay oto yónnee leen ko te par force lay doon ndax loolu li ko waral mooy Alaaji Maxari Géey moo ko waral moo defoon démb ba tey dikkagul ba démb di jafe ba muy metti ay coono di am ay jafe-jafe ci am alal jafe def jafe kenn mës a def lim def kenn mës koo def lim def kenn mës koo def mu tabax daara lim defal alquran te ñu ne lim def alquran kenn mës ko koo defal kuy tabax léegi daara yëpp tabax nañ leen suñuy tabax daara tey ak a wax gannaaw yàlla alaaji ma xëri tax kon yéen waa Thiès alaaji ma xëri xëyoon na xëyaale leen waxuma la lim def waa Thiès waaye réew mépp xañ nañ ci ba muy def alal jafe na def jafe na jamono ji metti la jamono ju jafe la kon yal na ko yàlla fayal te dana ko fayit yal na yàlla def jannatul firdaws suñu wàccuwaayam moom ak ak njabootam yëppam nag luy teraanga yàlla di ko di ko defal ab jaam rek ci bàmmeel rek yal na ko defal lu kawe suñu jor te njabootam tamit lépp luy aw yiw yal na leen ko yàlla defal te yéen waa Thiès ngeen duggaale ci lépp alsaan suñ xol sedd sëñ bi ko ak dal ak nam toll ak la cay nekk ngeen ne ñoo ko gàdd ñoo koy def booba rek la ñu booba rek la doyoon sëkk lii ngeen defaat yëkkataat ko di ko joxe loola ak mbaax la ak leneen lu la nga xam ne nii la yenti waxoon Ousmane day ne maa darra Ousmane maa faala baadal yow mi bis nekk tey Ousmane amul lu muy mën a defati lu koy tee dugg àjjana waaye loola yal na leen dal yal na leen dal yàlla waa Thiès li ngeen soxla yéen ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi liñ mën a wax liñ mën lépp loo xam ne nii teraanga yi àdduna alaaxira yal na ko te yàlla teg seen loxo yal ko yàlla teg seen loxo na ànd ak gudd fan gudd fan la wir wér le baax baax le barkeel barkeel le seen mbir yàlla nay baax ba faw te bu mu bon ba mukk nag yàlla nay rafet ba faw te bu mu ñaaw ba mukk mukk yàlla nay jag ba faw te bu mu jageet ba mukk nag lépp luy teraanga rek yal leen ko yàlla defal xool sedd na guy sa yeboo sëñ bi def ñaan na yàlla fay leen. yal na yàlla fay leen yéen ñëpp. yal na yàlla fay leen. yal na yàlla fay leen yéen ñëpp. ngeen bañ a fàtte nag waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu. nee na ngeen bañ a fàtte wax yàlla ji waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu. ne ko looloo nu ci gën a yitteel. nee na nee na loolu moo ko gën a yitteel si wax. ci benn benn ngeen bennoo. nee na ngeen bennoo. seen xalaat di benn. seen xalaat di bennoo. seen yëf seen jëf di benn. seen jëf di bennoo. ngeen di nangu ay ngant nee na sëñ bi nee ngeen nangu ay ngant seen diggante nee na bu ko defee loo leen jéem se ni ngeen ko bëggee si kàttanu sunu borom ak jëmmi li ngeen di liggéeyal muy alquraanu karim nee li ngeen bëgg lépp dangeen ngeen ko am te du ànd benn coono bu soobee yàlla yal na yàlla nangu jëf jépp وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقل